bu ci ne fatiha ak inna axtaynaakal fukki yoon des na ko jéggal bàkkaaram yépp bala moo jóge fa mu ko doon defee te des na ko bindal tuyaabay junni aj ak junni umra ak yoolab ku saraxe junniy dërëm mel na ni it ku seeti junni ñu wopp ak ku bindi junniy néew ak ku jàng ab kaamil te des na ko ci bindal yitam tuyaaba ju ëpp jaamu yàlla juróom-ñaar fukki at